ganu suba si di Adja Ndiouka Lindor mbay jiite fédération bi ëmba jigéen yi ñu euh, tuddee femme rural euh, muy ñi nekk ci biir euh, réew mi kon mu jaboote leen ñoom ñëpp ci boobule fédération Adja ñu ngi lay nuyu dalal jàmm ci réew mi FM mbégte mu rëy la ñu àndal ci dalal la. Fatou mhm. ñu tey euh, la ñuy màggal ci àdduna bi yëpp bëccëg bi ñu jagleel euh, femme euh, rural muy jigéen ñi nekk ci kaw gi bu ñu ko munee waxee noonu bëccëg bi nag ngeen jël ko tënk ko solo si ci jot ci suuf si maanaam accès au foncier waaye itam lu aju ci seen kaaraange ba ngeen mën a yegg ci autonomisation maanaam moom seen bopp ci fànn yu bëri lu waral ngeen tànn thème bu ni mel ngir jëmmal Euh, bëccëg bi. jërëjëf Fallou euh, dëgg la tey nañuy màggal suñu bés bi comme ni ko jigéenu àll bi waxee démb ñi ci kaw bi waxee démb rek am na ci ñoo xam ne xamuñu sax lu journée femme rurale moo tax ñu dem ci fi gën a sori pour ñu xam lan moo xew euh, li tax ñu tànn nag bésu kii boobu thème boobu mooy ñun dañoo sonn ci suuf si ndax sooy seetee jigéen ñi dañ leen du luyee suuf si dama leen koy luwee fukki junni ak juróom hectare bi wala fukki junni xam nga dafa metti torop te boo fekkee ne yow tey euh, da nga bëgg a uti jiw luye suuf bëgg a béy moo xam nawet dina baax moo xam nawet du baax boo ëllëgee mën nga ci am problème ak sa banque ndax doo jaay doo am suuf bay jaay wala aussi boo amee suuf boo béyee moo xam nawet baax na nawet baaxul la nga cay am du mën a fay bor ca banque ba du la mën a dundal dundal sa njaboot. waaye luwe boobu nawet bi yëpp la. nawet bi lañ ñu koy luwe parce que ñun dañuy même bu fekkee ne xam nga tam am na ñoo xam ne mbéyum noor lañuy ñuy def. waaw ñiy def mbéyum noor mi léeg-léeg ñu abal leen abal boobu lañ ne waratul. Hmm. li ñu war tey mooy jigéen ñi ñu jox leen suuf suñu moomal seen bopp. l'accès et le contrôle des terres par les femmes. loolu mooy eh? ak di abale. ñan ñooy luye ak di abale. paysans yi ñoo koy léegi ko amee. parce que tey dañu ne ñoom jigéen warta doon suuf. xam nga su fekkee ne dañ ne jigéen warta doon suuf yow ba doon suuf ci sa baay wala ñu ne ñu carrément dem leen ngeen gori garab bu ngeen bëggee am suuf su ngeen moomal seen bopp. nan la ñuy goree garab ak fan gan garab la ñuy gor ak gan garab la ñuy bàyyi ñu gor ko pour moom suuf. Mhm. ndax dañ ne jigéen bu demee jóge waree kër baayam dem kër dëkkëram euh, baayam dem mu doon suuf. mu dem kër jëkkëram jëkkëram dellu dellu suuf bu yàggee suuf seet ñu jot. jigéen ñi te loolu xalaat bu ñaaw la. <laughs> loolu xalaat bu ñaaw la après bu dee loolu am na nag jigéen du am suuf ndax bu sa doom bu góor doon ne suuf tey sa doom bu góor boobu même bu la ci abal ngay béy bu ëllëgee day am jabar. Mm-hmm. doom te jabaram day béy suuf seesee. kon yow miy ndey ji rand nga dootoo am suuf looloo tax ñu bëgg nag ñu dimbale ñu pour que jigéen ñi am suuf moomal ko seen bopp. ndax mënoo autonome. Mhm. te amoo loo foo jàpp. Mhm. balaa ngaa autonome da ngay am ci loo jàpp mais mënoo pauvre ba pare autonome mënta ne. d'accord alors bi ngeen tàmbalee euh, xeex bi ba tey xeex ngir jot ci suuf ji yéen jéego ngeen gis ne kilifa yi def nañ ko ci rawatina ak njiitu réew mi. xam nga njiitu réew mi teg na fi commission réforme foncière mais commission boobu ñu teg bisu benn jigéenu àll nekkul ci biir commission bi benn juriste yi xam am na ñu fa nekk. mais benn jigéenu àll te nit ki nag boo koy xeexal da nga koy boole ca biir pour xam lan mooy problème am mun ko mun ko mun ko koo xeexal mun ko caa jàppale mais depuis lors problème teg nañ commission bi mais commission bi rek na wut problème boobu parce que ba léegi ñu ñuy luyee suuf man miy wax a yow tey samay tool dañ ma ko luyee hectare bi fukki jën lañ ma luyee ay hectares yi ma béy keneen ak noonu ci biir fédération bi te loolu métti na moo tax man li ma doon créer xelal état tey toujours ma di ko wax wax naa ko conseil économique wax na fu ne nañ organiser des assises pencoo bi pencoo suuf si ak mbay mi organiser des assises de l' agriculture et du foncier organiser nañ fi les assises de l' éducation les assises de la santé et autres mais pourquoi mënuñu pas mënuñoo organiser des assises de l' agriculture et du foncier régler une bonne fois pour tout le problème foncier ak problème agriculture bi parce que ba tey ñun jigéen ñi danañu jot jiw mais li ñuy jot c'est waaw hmm. c'est peu te dañu am suñu apporté ko di xaar jiw ndax marché bi dafa cher ren kilo bi ñaar téeméer cent kilos yi cent mille franc nga koy jëndee boo bëggee bay ak loolu du sotti jigéen ñu bay bay bëri bayuñ ren ndax amuñu jiw ndax daaw nawet bi baaxul nawet bi ñaari weer lay yem déeb daaw la dix octobre la nawet bi jeex alors loolu bu jeexee jiwu amul ren ñu doon yaakaar état rek moo ñu mën a dimbale parce que ñun benn parce partenaire lañ am muy état àll bi benn partenaire la am muy état. Hmm. waaw est mi ngi leen di taxawu ni mu waree. Eh? est-ce que état mi ngi leen di taxawu ni mu waree wala ni ngeen ko bëggee. en tout cas jox jiwut yu ñuy jox doy ñu te président dafa ne nañ jox jigéen ñi ñu bay ba jigéen ñi taxaw ne président na def cent milliards ci agriculture pour relever le défi de la pandémie ëllëg après pandémie après Covid kon ñun tey li ñu waroon mooy jox ñu ba ñu doyle ñu béy parce que jigéen ñi. agriculture rek moo mën a suqali réew mi fi jigéen ñi ñoo yore main d'œuvre agricole bi yëpp jigéen ñi la cinquante deux pour cent de la population ay jigéen lañ rural bopp le rural bi main jigéen ñee ko am kon jigéen ñi ñooy béy jigéen ñooy sonn kon dañuy jox ci may tey jiw tey bu doxoon jigéen ñi jiwu ba doya doya doya doy bu so bu boobaa Sénégal yaakaar naa développement euh, agriculture dana ko suqali. Mhm. te loolu rek ko mën a suqali. d'accord jiw boobu ngay wax amoon na fi ay coow yu ci jugoon ñu ne dana koy luubal euh, wala dana koy détourner jox ko ñoo xam ne yeyowuñu ko ndax yéen euh, am na lu ngeen ci xam. xam nga ñun wax dëgg yàlla loolu ñun xamuñu ca dara. ñun li ñu xam mooy su nawet jotee ñu joxe apport ñu jox ñu lañ ñuy jox ñu dem béy mais quant ay luubal te opérateur yi ñuy booleel wax dëgg yàlla opérateur yu jub ndax lañ ñu sant pour ñu jox ñu ko danañ ñu ko jox joxuñ ñu xaalis jiw lañ ñu jox gerte lañ ñu jox engrais lañ ñuy jox ñun ndax ñun utuñu xaalis ñun jiw la ñuy am moom la ñuy joxe. Hmm. mais nag lañ ñuy jox lañ ne buñ ñu ko yokkalee mu mu baax ndax boppee guñu ndax fédération bi trois cent deux mille membres la nga jox leen dix tonnes engrais fukki tonnes engrais ak fukki tonnes gerte kooku jël ñu dara te Sénégal yëpp Kaolack ba ñu jëlee si seen jiw. Hmm. kon loolu ñun ñaan yokk la ñuy laaj waaye luubal ak euh, affaire yooyu ñun wax dëgg yàlla gisuñ ko te xooluñ ko te duñ xool lu bon. ñun li ñuy xool rek mooy nañ ñu dolli. d'accord léegi bu weesoo mbay mi suuf si ak jiw gi yan jafe-jafe la jigéenu kaw gi di jànkonteel tey Adja Ndiouk Mbaye am na jafe-jafe ci seen wér-gu-yaram parce que wér-gu-yaram bi su ma koy wax mooy euh, jigéen ji ëmb war a am ëmb ndax tey boo demee dëkk bu mel ne Thiamène ba amul poste de santé nga dem dëkk bu mel ni Niger dem dëkk mooy mel ni Ndiadiène bari na dëkk yoo nga xam ne ci àll bi dañu enclavé te amuñu poste de santé ñun sax mënuñoo am poste de santé xëy na mais nañu dimbale ñu am case de santé bu ñu amee case de santé jël stage femme itinérante yooyu nga xam ne amoon na fi buy jëkk moom daan doxal di dem ci àll bi di accoucher jigéen parce que toujours jigéen ñi ñu ngi am euh, am tolof tolof di gaañu di dee bu ñuy am doom di ëmbi di di di wasin li ñu naan les femmes toujours en donnant la ba léegi mi ngi am kon su fekkee ne loolu mi ngi am te li mooy ñàkk sori sori hôpital ba wala sori euh, post de santé ba li ko waral mooy yoon yu bon yi ci biir àll bi parce que ñun amuñu yoon ba tey te ci biir yoon yooyu. xanaa PUDC bi yegg si wu fa. eh PUDC bi yegg si wu fa. PUDC xe mos naa ko président nee naa ko kenn mënul dajal ñëpp mais même PUDC boobu mu ne ah mi di ñuy joxe ñun am na jox ba dëkk yoo xam ne ba léegi ñu ngi wàllum ci gën a pour te président dafa taxaw ci grand théâtre fële kon euh, centre Elisabeth euh, Abdou Diouf ne bëggatoon gis jigéen bi wal ci gën a kuur mais ba léegi ñu ngi ci wal ndax moulin bi ça fait waxoon naa ko ko ba léegi dama koy waxaat ndax man def pose femme rurale yi moo fi nekk ndax monde rural laa dëkk fa laa ñu yaakaar ma ma yaakaar kenn ku yaakaar gannaaw yàlla président laa ci yaakaar mu jàppale ma kon suñ ñu male woon ci piste ay piste rurale ñu am ko case de santé ñu am ay case de santé ak électricité parce que Pape Demba bi tey maa ngi koy interpellé parce que dëkk ba ma dëkk fa ñu doon defee démb Kaolack la bokk Kaolack la dëkk te Thiamène Taba ci biir këru Kaolack la këru kër Socé la te ba tey amuñu courant xale yi jàngi sax ci poto yi la ñuy dem du taxaw di jàng. ba léegi. waaw te président nee na loolu bu mu amati kon nañu électrification rurale dañ ñu ci dimbale waat ànd ba léegi am na dëkk Thiamène Taba ñu ngi jooy ba léegi courant. te dañoo voté massivement jàppale le président Macky Sall kon nag tey nañ leen delloo njukkal ci loolu ñu doon jooy. njàngum jigéen ñi foofa ndax amu ci tolof tolof euh, dañuy faral di wax ne euh, ñi ci kaw gi jigéen ñi dañuy am jafe-jafe lool ngir jàng euh, tu tànk yi itam yenn saa yi duñu leen bàyyi ñu eggali seenum njàng ndax yow boobu jafe-jafe nemmeeku nga ko fa. loolu moom jeex na ba ma yeboon na ci àll bi parce que xeex nañ ko ndax li tax ma ne jeex na. Hmm. ren xale yi am bac ci àll bi bari nañ trop moom kay orientation la ñuy jooy. Hmm. waaye ndaxte bu njëkk euh, problème bi daan am ba léegi sax xëy na mi ngi am mooy sañ ngay nekk ci waañ sonn nekk ci àll bi sonn di taxan di def yëpp ngay wëlbatiku di ko walali ci lañ doon jaar di violer jigéen ñu bari hmm. ndaxte dangay jël dëkk bu mel ne euh, fële euh, dëkk bu mel ne Yarwaango dafa enclavé ndox mi kii leen c'est dans la région de Fatick dans le département de Foundiougne bukki lekk na fa doomu jàmbur. Hmm. violé nañ fa ay doomi jàmbur ndax dañ doon ngoli man dama lijjanti ba yóbbul leen Moulay Amé temps yii ñu ma naan Moulay bi dafa xaw a yàqu la taxoon loolay am ñu bañ a jàng mooy dimbale seen euh, ndey yi ci wàññi mais léegi ndey yi aussi ñu ngi ne doom jàng moo gën nga di ko utiliser au foyer comme mu mel ne yow ba yow ëllëg du mën a am dara. Hmm. tax ñuy bàyyi xale yi ñuy jàngi comme góor ñi mais ba léegi dinañuy sonn tam ndax boo jàngee wàcc bu nga daw walali sa yaay dina métti ci dëkk ak dëkk kon ñu ngi ñaan ñu yokkal ñu Moulay Amé di aussi ba dëkk yëpp. bu dee amul it dëkk ak dëkk bu jege woo tuuti ay quatre kilomètres sax man a am wala trois kilomètres su ko defee dëkk yooyu yëpp di cawal mhm. mais léegi njàng mi moom wax dëgg yàlla ci biir àll bi mhm. njàng baa ngi dox parce que jig xale yaa ngi jàng ba am seen i bat ñu ngi jàng ba am seen brevet ak entrée en sixième yi kon xale yaa ngi jàng ñu ngi jàng parce que xam na ni njëriñ d'accord léegi ñu jeexal ak autonomisation maanaam jigéen ñi moom seen bopp fan la ñu war a jaar ba yegg ci boobule autonomisation. en tout cas dañuy xam nga toujours dañ di wax ne nañ euh, def autonomisation des femmes surtout les femmes du monde amoon na fi tamam. Mhm. mais mënoo autonome mënoo pauvre ba pare autonome. mënta ne il faut nga am ay agricole pour autonome il faut nga am jiwu pour autonome il faut nga mën a am. Euh, hôpital bu baax il faut nga mën a am piste yu baax pour mun a loo loo gay nga mun koo école ji mais tant que loolu amut munoo autonome munoo pauvre ba pare di autonom nañ ñu jàppale ci jumtuwaay matériel agricole surtout nañ ñu dimbali ci euh, euh, allègement travaux des femmes ay moulins à mil ay batteuses ay presse à huile yooyu bu ko amee Sénégal dina naat parce que jigéen ñi ñoo war a dundal Sénégal. Hmm. ndax grande puissance yëpp sute nañ dafa jëm métti na. ñëpp a sute à cause du Covid ëllëg pour que Sénégal mën a relever le défi de la pandémie là et de Covid nañ fexe jigéen ñi ñu ñu ñu ñu dimbale leen outillé leen. ba nga xam ne ëllëg ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci tool yi guddeeg bëccëg ñu mën a relever bay pour que Sénégal mën a naat ñu mën a relever le défi de cette pandémie lan ngeen dégg ci lan ngeen dégg ci protection sociale bi ngeen dëxañ ci biir thème bi tey. ah protection sociale ñu ngi ci ñu ngi de ñu ngi de ñu ngi ci de wax dëgg yàlla waaye daal ba léegi daal ça reste chantier. Hmm. waaw ça reste chantier dañ ñu dimbalee daal. lu ca des. waaw li ca des bari na comme li ma la wax léegi li ca des bari na. Hmm. li des bari na de. waaw li des bari na jigéen ñi daal li des bari na nañ ñu jàppale. jërëjëf Adja Ndiouk euh, Lindor euh, Mbaye euh, xanaa ñu jeexal ak bés bi ban solo la am ci yéen lan la leen di may ngeen mun koo def par rapport ak seen situation solo parce que dinañu permettre ñu wax comme ni nga defee nii mhm. jël ma ma wax soxlay waa àll bi wax li xew li ñu fi ñu mën a fi ñu mën a yeggale fi li suñu problème mhm. ñu jooytu ko pour que état mun cee taxaw parce que comme ni ma ko waxee ñun am uñu partenaire amuñu partenaire benn partenaire lañ am c'est l'État mhm. kon permettre nga ñu tey ñu wax suñu soxla yi li ñu si problème bi am pour que ëllëg ñu mën ñoo mën a dimbale ba loolu saafara waaw ndax ku ñu waxul duñ la dee. Mhm. may na leen itam ngeen sensibiliser jigéen ñi euh, ci célébration bi nga xam ne ko démb jigéenu àll bi léegi mhm. dafa tuñ de li ma doon wax li may wax naan ñi doon nelaw ñëpp ñoo daw ci ñi doon xool ñëpp ne yeewandoo mm. ñi doon dajant ñoo dag ci ñi doon nelaw ñëpp yeewandoo <laughs> waaw mooy dëgg ñoom yeewu nañu léegi xam nañu xew parce que dox nañ ko mm-hmm. man li ma doon dox yëpp mooy ñu xam fi mu ne jigéen ñi xamuñu parité léegi ñu ngi koy xam ñu ngi dugg ci commune yi ñu ngi xeex ak góor ñi waaw li des rek mooy problème suuf bi daal mooy suñ problème waaw ak matériel agricole loolu dong mooy suñ problème mais buñ ko amoon waa naa ci yàlla Sénégal ñoom ñoom ñoo koy dindal waaye Sénégal dootuñu dundal kenn dootuñu kii. Mhm. kenn dootuñu yërëm ñun ñooy ñun ñooy ñooy yërëm nit ñi. jërëjëf madame la présidente Adja Ndiouk Lindor Mbaye jiite fédération nationale des femmes rurales du Sénégal moom la ñu doon dalal dellu di leen sargal Adja ci bëccëg bi nga xam ni moom la ñu leen jagleel sargal jigéen ñëpp jërëjëf Adja Ndiouk. merci beaucoup merci jàmm.